masawa ida yamta ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziyaara di leen ndokkeel di ñaan yàlla ci mbaaxam yal na bés bi del siwaat déwén fekk ñu fi mooy yal bési Louga bi del si déwén fekkaat ñu fi ñun ñëpp fekk ñu ngi wér ànd ak wérle ñu ngi mucc ànd ak mucc le yàlla toftal ci wërsëg wu yaatu ba kenn ku nekk li mu bëgg ci diine ji ak mbokk gi ak tarixa bi ak tarixa bu mu mën a yàlla defal ko ko tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiin ñu ngi nuyu kilifa yu fi nekk yëpp jiiteel ci ni ko sëriñ Sidi Ahmed Mbay waxee léegi suñu xarit suñu soppe suñu mag suñu wëllëre yaa sayid sëriñ Sidi Maxtar Kunta yaakaar naa yéen ñépp xam ngeen ko benn xarit la am ci kaw suuf moom mii toog la ñi ci des ñépp ay soppe lañoo ki wëllëre loolu nag léeg-léeg am ñu ci mer waaye ku ci merit loolu la yàlla def bari nañu ci mer fekk dañ xamul islaam ku bëgg a xaritoog ñépp nekk naa feq xarit benn rek lay doon benn comme ne koo dégg diw sama xarit la diw sama xarit la naa feq rek la man nag li ma jàng rek lay wax alxuraan bi alxuraan jeex 124 millions yonente ci nekk maanaam yàlla tuddul ñëpp waaye junj na leen 25 ci ñëw seen tur su ma juumut ci alxuraan 313 la ci yonent bi tudd waaye 124000 lañ cent wa rusul 124000 yooyu yëpp kenn la ci yàlla seppi turam wattaxazallahu ibrahima xalilan maam ibrahima rek la yàlla wax ne moo ci xaritam yonent bi huwal xabibu yonent bi soppe yàlla la soppe moo gën a ëpp doole xarit xamula moo tax maam ibrahima gën a sonn ci yonent yi moo tax kii moo gën a sonn ci ñi ma am sa xarit boo reyee nit sax mën nga ne moo ko rey mu ne waaw loolu nag yombut moo tax maam Ibrahima gën a sonn ci anbiyaaw yi gannaaw yonent bi gisuma ko gën a sonn maam Ibrahima ndax lim daj ci diggante ay buur ñii di ko pamti pamte Namruus fii ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen kon nag loolu rek foofu lañ ko teg ki xam yàlla piir nag yegg ci yàlla ba sës te xamantuwu ko muy Seydi Aboubacar si alxalifa moo tax boo ko mosaan jox guro si ñab du nee na du ko xar sax ni da koy màtt ci digg bi mu ne bañ laaj ko bés si lii lu tax mu ne de ragal rekk tàqale ñaari xarit ndax ñaari xarit yu ma fekk ñu kolewante man Babacar duma leen tàqale mukk mu ne wa kadhalika loolu mooy nit ak xaritam yaay benn ŋàdd bi muy benn ŋàdd bi ñu boole ko muy doomu guro loolu mooy xarit ñetti ngàddi guro nag amul ñaari ngàdd rek am yaakaar naa ko de kon docteur Sakho yegsil nii ñu ngi nuyu ñëpp xam ngeen ko muy suñu xarit di suñu soppe di suñu wëllëre di suñu lépp di sëriñ Sidi Maxtaar Kunta ñu ñaanal ko yàlla ñaanal ko suñu bopp yàlla na ko yàlla may gudd fan ak wér te defal ñu ko defal ko mbooleem jullit ah, bu ko defee Chérif moom man mënuma mënuma di sax dégg di wax ci moom waaw ndax dam leen ni li muy wax sedd yàlla yàlla sedd na ni dafa am na loo xam ne bu la koy nit di wax xëy na sunu borom xiir na ko ca loola boole leen ca loola ngir nga mën cee defaru man sama defaru la loola ndax li muy doon ak sama defaru nit ku la ni ak ci fi mu jaar ak li xam ne benn xarit laa am te li mu tegal ma ci loo xam ne dafa yéeme. ne ma nag yow yaa xam kuy sa xarit man bëgguma koo xam xam nga loolu loo loolu ndax man tere naa ko ko koo wax ba mu ko jëkkee wax damaa tiit ne ko sëñ bi bul ko waxati waaw ma ne ko man mii lii nga wax ñemewu ko wax man <laughs> ndax dana am ñoo xam ne jàpp nañ ne tey ji man maay seen lépp ci àdduna mm-hmm. ba te dañ koy wax mm-hmm. mais li ma seq moom sequma ko kenn ndax nit ki la la neex ca man ak la ma naqareeg lépp lépp moom moo ko xam li ma xamal kenn xamaluma ko waaw ah lan naan nag junj doy na borom xel waaw li ci des nag moom nag bokk na nu nuy waxe moom danaan sàng ca digg ba rek man nee naa tere tere naa ko ba tàyyi waaw day wax ba pare mën na ko si rek li ngay wax du noonu waaw munoon nga ko waxee neneen boo defe woon nii ak nii mooy gën mu ne ma ah waaw waaw mais yàlla lii la wax ak lii man man waxuma la yàlla <laughs> ñun suñu wax lañu wax ma ak yow bon te it euh, la ca yéeme ba yéeme it mooy xam nga nit ki mën nga ko xam ci situation bu ne mais xam nga ki nga xam ci ndawam nga toll sa digg ndaw euh, yéen a ngi ànd di dem lépp loo xamante ne bii bakkane na rek bokk na ci lu leen gën a yomb. Ah. <laughs> waaw booba lépp lu bakkane yomb nañu. Mhm. mais man ma di ko seetlu dama ko seetlu lu ci lu bëree bëree bëree bëri man mun ci loo xam ne man mënuma ko ñañ doon àndalit mënuñu ko waaw. ndax nag nit ki te mais loolu lépp ndimbalu suñu boromaa rek mm-hmm. waaye loolu du njàmbaaram mm-hmm. ndax ñàkk dox sa ndaw mm-hmm. yàlla rek lay dimbali waaw bon man sax dama naan waa léegi ci sama xalaat laa waxe waxuma ci xam-xam kiy dox ndawam ba yàgg xam ne lii mu def jaaduwul dellu tuub ci boromam ba ak ki ci jaarul sax est-ce ko ëpp yoon <laughs> waaw wallaahu aalam kon nag moom ndimbalu suñu borom la am yàlla dimbali ko ca loola ba nëga ni kon nag li ma gëm daal te seetlu ko ci moom képp ku ko yàlla ku yàlla nar a di nga ànd ku yàlla nar dimbali di nga ànd ak moom ndax ànd boo xam ne ay ndaw rek ñoo nekk fii mm-hmm. ànd bi kenn ko ci ne saa yoo toogee moom boo fi boo boo jógee di nga defaraat sa toogaay te amit na loo xamante ne bi yokk na ko ci yow sa diggante ak sa borom loolu na koy ànd ak mel noonu loolu chance la nga am loolu te néew na tey sëriñ si ko ci toogal ay projet ay nangam ak loolu lii ngeen di wax Chérif ku mu toogal ci yéen waxtaanam yépp yàlla ne yonent bi ne jeex wa wa topp àndu leen ak moom ngir leneen topp leen ko ngir leneen ku mel noonu nag dama jàpp naa ni ku yàlla nar dimbali yaay ànd ak moom te yoonu Louga bii ku baax ngeen di fekki ngeen di fekki nitu yàlla la ku yàlla may la ku yàlla baaxe la te it sax man damay xalaat ma ne ah, mën nga ni kaay la ñuy dem àjjana daal sëñ bi kuñ ko wax war nga jaa sawar daal yoonu Louga bi loolu lu loolu loolu lay firi loolu lay tekki du leneen.